jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb euh, bàkk ba jib na générique bi départ na wasaare làmb tàmbali na ak jàngat làmb euh, comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu leen di siyaaraat bu baax a baax a baax demoon nañ ci dëkk bu sell ba euh, di Touba Mbàkke mbokk yi demoon fa ngir liggéey waaye demoon nañ fa ngir sàkku ñaan demoon nañ fa ngir ñaanal képp koo xamante ne jullitu yàlla nga lépp loo xamante ne ñaan nañ ko ci dëkk bu sell boobu yàlla nañ ko suñu boroom defal euh, defal ko mboole mi jullit yàlla nangul ñu euh, li nga xamante ne moom lañ fa ñaan yëpp euh, di siyaaraat mbokk yi seetaan wasaare lamb ba tey di leen wax ni dem leen ci wasaare religion bi ngeen ngeen abonné xool li nga xamante ni jëlee leen nañu ko fa ci dëkk bu sell ba ñu leen di siyaaraat bu baax a baax a baax di siyaar sama papa père Birahim di ko di ko njokkale bu baax a baax a baax père maa siyaar waa jërëjëf maa ngi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim hmm. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri maa ngi nuyu mbokki internet yëpp yi xam ne ñu ngi safoo sawa Wassare euh, di ko safoo di ko seetaan maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaan sama kàddu yàlla yàlla fekk leen ci jàmm hmm. yàlla defal leen sutura defal di ko ñaanal waa bureau bi tamit hmm. caméraman yeeg yow mi Abdou Khadre yow mi jili di sama doom ñu bokk def émission bi mm-hmm. may ñaanal ñëpp di ñaanal Touba mm-hmm. la ñu demoon nga ñëwoon siyaara ji clip sëñ Touba moomu mm-hmm. lépp lu ñu fa ñaan ci lu baax yàlla na ko yàlla wesaare ci monde bépp yàlla yàlla nangul ñu ko suñ ko nangulee yàlla nañ ko yàlla wiseere ci jullit yëpp nag parce que jullit ak moroom ma musa amul xejal seen jullit ak moroom ma amul xejante képp koo xam ngi def nga la yàlla santaane rek ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp parce que ñoo bokk penku bi ñoo bokk alquranu karim ñoo bokk seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk kaabatullahi kon tey ji yaakaar naa murit ak ñun ñëpp benn lañu kon ñun ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di kër ñëpp nag jërëjëf Père mbaa daa mel ni voyage bi xawoon naa ci mag ñi de waaw waaw waaye man nag mettiwul ci man parce que mm. sama doom yàlla wërsëg na ko mu yor oto mm. tubaarkàlla ñëw jënd ay affaire dugal ci biir oto bi mm. ànd ak ñun man ak sama beneen doom hmm. ñoo ànd dégg nga yóbbu moom yóbbu moom a delloosi yóbbu moom a kër Mori Gueye sama benn jarbaat hmm. fala fala ma daal bi ma duggee falaa toog daal def samay faraf daal parce que sëñ bi dafa nañu daal santal leen ma leen ma bis bi santal leen ma sama borom hmm. kon ñun bu ñu demee man dama am loo xam ne dama koy gis ñii ñu di ko def léegi yow naka nga ne yow sëñ Tuubaa ñëw ne santal leen ma sama borom yow nga jóge fii dem ba Tuubaa sa jël laalu suuf julliwoo defoo dara yaa nga ca bernde rek mm. lekk naan tëdd kër doo wax doo fekk ko waxtu juróom mm. doo julli doo def dara doo sal doo doo doo naafila sax sant sa borom loolu tamit sant la woo ko sëñ Tuubaa borom te loolu daf ci bari parce que man dama doon jóg kër gi ne ne eh yéen sëñ dafa ne nañ sant leen ma sama borom mm. su ñëwee kay nañ leen def waxtu bi jot bu ñu ko manqué waxtu waruñoo faat waxtu ba pare encore ñu fu ñu toog lañu war a dem def ay salaatu ala mm-hmm. waaw yu bëree baree bëri parce que loolu la wax ñu sattal ko sattale ko borom mm-hmm. parce que li ko borom defal mm-hmm. képp kuy Sénégal kuy monde bi rek xam gis nga sëñ ko yàlla may waaw jërëjëf Père Birahim euh, mu doon loo xamante ne benn entre parenthèse la woon rek Père tey ñu fas yéene ñëw ci jàngat bi waxtaanee combat boo xamante ni daf fi jotoon xew mu dox ci diggante Balla Gaye 2 ak b de Bombardier mu doon combat boo xamante ni ci la Bombardier li jël ci Balla Gaye lii di titre roi des arènes bi nga mm-hmm. xamante ne jëloon na ko ci yi Jóob Yékini mm-hmm. euh, mu doon làmb joo xamante ne ñu bëri newoon nañ jaadu mm-hmm. ñu bëri newoon nañ jaaduwul mais keroog bi ñu bëree làmb ji ñoom ñaar dafa am surprise bu ci xew mooy gis nañ jëmmi Balla Gaye état de forme bu mu indi woon mu bett ñu bëri mu bëreeg ba Bombardier Bombardier daan ko jël boo xamante ne amul benn werante loo gisee combat boobu waaw jërëjëf gis naa ko mais combat bi ne comme ni nga wax ne amul benn werante mais amul werante ci yow mm. waaye man am na werante ci man mm. man nag boo ñoom ñëpp samay doom lañu mm. aw ma ci koo xam ne kii kat dama naan kii laay faral wala kii laay contre wala dara parce que nit mm-hmm. euh, jiri mm-hmm. loo mën a wax rek da wax sa diggante sa borom parce que dina bis dina toog bis mm-hmm. nga laloo sa ndejoor si bi paxte kenn du la fa fekk sa jëf sa wax rek la fay fekk kon man li may wax du ma contre nit. Hmm. du ma ñaan nit du ma nit lu bon. wallaay xam naa la. loolu moom laay laay dund te moom laay jéem a dund. te may ñaan yàlla tamit bu réel baax la tamit ñu may seetaan di ko dund. parce que loolu soo ci nekkee. Hmm. ba sa sa xel dal. Hmm. man samay doom lañ Bombardier mii. à quatre-vingt-neuf lañ daje Touba màggal mii. mu ngi ànd ak ku ñuy wax maalaw Malaw Mbuur la dëkk xëy na dina seetaan émission bi dégg li may wax. booba tey dina dégg li may wax. mu daal di ñëw nuyu fekk maa ngi ànd ak sama doom bii maa doon màggal nii. Hmm. kenn ku ndaw ki El Hadj hmm. maa ngi ànd moom ak yaay ci marché Ocass. maa la ñëw ma. moom mais dama téye loxo bi rek ko yow booy xanaa mbër nga. Hmm. mu ne ma waaw ma ne ko noo mu ne ma Bombardier. ma ne ko ah yow yaay Bombardier ma ne ko dégg naa daal ci tonne ne ko ay ko man mi maa ko parce que maa seetaan ay édition ak booy ñaa naa li ngay xale moo tax xamoo ko lii la ko wax mu ngi dégg mu yaa ngi dégg li ma ma ne ko naa la sa bàyyi mbër dina la jox xam-xam tey jii ma ne ko naa la wax leen su fekkee ne yow de su fekk boo bokkul ci gone yi di wor mm-hmm. wallahi taala mën ngaa lekk lu ne ci làmb moo tax lekk na lu ne billaahi wallahi tallaahi ci kanam mbooloo laay wax te yàlla tam mu ngi nii te Bombardier su ko seetaan dina xam ne père lii mu wax dëgg te am na yeneen sax yu ma ko fi waxaat yoo xam ne daje ñu ay conseils yu ma ko jox kon xam nga kooku aw moo ci lu ma yeneen mm-hmm. Balla tamit wax naa la ko fii dinaa ko répété maa ngi yeb bàyyam sama oto hmm. jële ko pisi olympique wàcc ko boo ma ne ko lees gis naa sa doom boo xam ne bii soo ko toppatoo loo ñàkkoon ci làmb di ko lekkaat hmm. ma Omar dama gis ko dégg ma ne ko hmm. jii kon man kon ku ci nekk am na lu wax ak yow tey su demee ñaar ñoon kii dem ba yor titre kii yor titre ñu war leen euh, titre bi ñu ne Balla Gaye ko yor Balla Gaye moom it wax dëgg yàlla ñu war ko daje kii ñu war daje combat bu neex la parce boo gisee Macédoine yi ñoom ñaar tolloo nañu ci toll nañ ci taxawaay toll nañ ci jëmm toll nañ ci at xëy na seen âge tolloowul mais wu ñu lu bari parce que damay wax ne différence bu mbër ak morom ma dix ans la waaw koo bokkul ko ki nga mag bokkul carrière hmm. dix ans la hmm. mais ay trois ans quatre ans cinquante ans six ans ay morom ngeen waaw dama ne xam nga ñaar ñi bu ñu demee ba tam ñoom ñaar ñu kenn ku ne war ngaa mën a téye làmb ci sa loxo ay at kenn mënu ko jël sa loxo parce que seen dayoo may nañ ko seen bëre may nañ ko mais ñoom ñaar ñu demee ba ñu boole ñu war a daje jël wol bi gàng la war a doon waaw wal waaw yétam kenn war toog ne kii sukk na kële raam na kële dafa sukk wala kii teg na fees wala kee teg na loolu moo loolu moo warul ci jël bi nii de waaw ci site la ci ci règlement bi hmm. waaye ñaari masadon ñu bool leen ñu war a wala wëlbit gàng la war a doon amul kenn ku war a dem ar këram di laaj ne fan la teg ak kii sukk na ñaari woom ak ne kii teg na fees waa kii sukk ñaari woom ak si ko mais mais mais Tyson nan la daane woon Moustapha Gueye. na mu daane woon mu dëpp trois. mu dëpp trois ko teel a bàyyi action ba. xam nga booba Tyson tamit yi xamul lu ko jox ko victoire ba. Mm. dafa nekk mu nekk ci digg fugam nekk ci digg fugam. wala dara mais croche bi mu tëggam boo di dem nii. Moustapha Gueye daal jël waroon naa mën a gën a leer loolu jël ba mu daan ba mu daan Moustapha Gueye mm-hmm. waroon naa mën a gën a leer loolu loolu moo doon yoon mm-hmm. parce que làmb ji la seen ni ñu ko changé ak seen règlement parce que dama la bëgg wax ci làmb lenn nee na làmb euh, ñu rek ñoo ko am Sénégal rek ko am beneen réew amu ko mm-hmm. ñu rek ñoo ko muy bëre dóor ñun rek ñoo ko am kon tey daf ci am loo xam ne aada la ca waruñu ko dindi xam nga mooy lan wëlbit gàng yenu dóor ci suuf mu leer nañ amul xaaral arbitre amul nañ dem seet télévision ku jëkk a kee jëkk a teg oom ak kee teg fees wala jël loolu ba ñu ko ci duggee ci la làmb ji yàqu. mais père gis nga làmb bu njëkk dañ doon wax carte d'identité du génn. waaw mais xoolal Coly Faye ak Ousmane Diop. combat waaw. ah Ousmane Diop wër ndomb ak euh, Coly Faye jàpp ko ci jàpp bu yàgg boobu bu dëpp carte d'identité boo xamante ne pendant trente minutes kenn mënul daan sama moom père nag. foofu mu entraîné mat cent et quelques kilos. waaw am doole yéeg din dem saal dem ñu ñaanal la bu ñu la rëppalee waa ci yow ba tey ci ci yow waaye dama ne xam nga la woon car rapide yooyu hmm. dama ne ñoom ci boppam lañ war a def gis nga yooyu bi ñëwee car rapide teg nga sa ñaari loxo ak ñaari yow hmm. ba tey mën naa doon jël hmm. ba tey mën naa jël waaye day fekk na loo xam ne lu ñu waxtaane la dégg nga ne ak léegi ku sa ku teg sa ñaari loxo nii sa ñaari oom nii ak sa ñaari loxo loolu moom jël bu amul benn welante la loolu ba tey d' accord loolu ba tey mën naa ci man mën naa d' accord sax règlement indi mën na ci d' accord waaye ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor làmb ji waroo war a jël ko cof ca judo ba cof ca karaté ba cof ca boxe ba fenn fu nekk ñu jël ca ah, ay ah, gréco-romaine ba ak lii di seen sud yooyu ñëw indi ko ci suñu làmb moo dul yoon parce que aada yi du benn parce que lii yooyu ngay wax yooyu ñoom ñëpp a koy def monde bépp ko am parce que dañ ko euh, dañ ko euh, maanaam euh, gréco monde bépp koy def hmm. waaye bëri dóor ñun rek ñoo koy def hmm. kon tey am na ci aada boo xam ne li ma la wax ni am na loo xam ne yi waruñu ci war a mën ko ci dindi mooy wëlbit gaa nga waru ci deñ su ci dañee rek xoromu làmb dañ na hmm. waaw wóol bi baax am na fi jël yoo xam ne tey buñ la ko limaloon nii tey di kenn dina ko daal. Bombardier euh, dëgg Balla Gaye euh, Gris Bordeaux waaye xam nga loolu tey xam nga ne Balla de waaw mais du yoon. Balla Gaye victoire boobu ñu ko jox contre Gris man contesté naa du yoon. parce que kii de de kii de benn avertissement kii ñaari victoire daan na loolu jël la yàq làmb ji moo tax ñu dugal règlement yu bon yooyu. règlement yi bon loolu du loolu day rey làmb laa wax parce que ku toll ni Gris Bordeaux war a bëri ak Balla Gaye war nañoo bëri ba kenn daan moroomam wala ñu mat si niil li rekk ci am parce que bëri daa mat si niil ci am wala kenn daan wala kenn daanu li rekk ci am li mat si niil mën naa am ci combat boobu mën nañu ànd mat si niil waaye victoire boobu ñu ko jox contre contre Gris contre Gris Bordeaux man contesté naa Modou Lo tamit contre victoire bi ñu ko jox contre la de guerre contesté man laa wax parce que jox ko ñaar kii ñaari victoire maa kee benn victoire ñu ne kii daan ci combat bu rëy bu toll noonu ak combat bi fuga bi mu am ak daraje ji mu am mais combat bu wër bi gàng rek moo ci war a am. loolu est-ce que loolu la man de contesté naa. Hmm. waaw waaw yooyu dama contesté dama contesté man su doon man laata du ma jox ko victoire bi mat si nii laa koy def hmm. waaw. dafa bokk ci làmb te yooyu dafa bokk ci làmb mais kon que combat yi nit ki fay xaalisam teel a ñëw ci làmb toog seetaan ba demee ñu ne kii kat dañ ko pousse moo tax léegi da ngay def ñaari victoire da ngay pousse kenn daal di ko mu am benn avertissement yow nga am benn mu nga am benn moom moo am ñaar ñu ñu ne téyel sa bopp ah gars yi au lieu ñu la bëreel léegi dañ naan téyel sa bopp téyel sa bopp bu bëree am na ñaari avertissement téyel sa bopp léegi yow boo sëqee waa ji nooy def tëgg ci génne yi pousse ko génne ko hmm. génne ko saako yi daal ko jox ñaar boo ko posité bu génn ñu ne yëkkati loxo bi ne ko ñibbi ne loolu làmb la waaye seet leen li ma li wax waaye yéen ñiy seetaan seet leen loolu waaw bu mujj bi bi mujj bi ci seen xew bu metti mais bi ñu àggee ci panneau bi dafa waroon atte combat mais dafa bàyyi action ba continuer loolu indi victoire ba ci biir la waaw ci biir la commencé mais ba mu commencé ci biir mais arbitre xam nga ñu jox la. règlement moo tax mu d' accord ba tey waaye dama ne la arbitre suñ la joxee ciblé ne la kaay entraîné panneau yooyu dañ ko fa teg pour war nit waru faa bëri dëgg la wala fen la barrière suñ ko tegee dañ ko fa teg pour nit waru faa bëri mais arbitre bi kay kon bu dee yooyu yëpp amu ci solo dañ naa ne yow foo daanu baax na waaye dañ laa war ne la boo jubee barrière yi wala bu ngeen jubee barrière dafa war a ne për ngeen taxaw ñëwaat ci digg géew bi waaye waroo ñu jël action bi ñëw ba ci biir géew ba mu terminé foofu nga yëkkati yëpp taar la mais fa mu waroon a arrêté combat bi yéen arbitre yi ñoo koy yàq parce que la mu waroon def da waroon arrêté combat bi avant ñu ñëw foofu parce que yow dañu laa jox si ne la atteel ku gaañu atteel ku ngembam tas atteel mu defaraat ngembam loolu mooy yoon te loolu duñ ko def di nañ ci loolu te ngemb bu tasee da ngay arrêté combat bi taxaw ji taxaw roofaat ngembam defar ba mu jekk nga def ak nga doon siwliwaat loolu mooy yoon ñun loolu lañ doon doxal muy benn ñaare ba su nit ki gaañoo muy nàcc arrêté mu ne faj combat bi ñu dem faj ko su dee gaañu bu garaaw ba mënta bëree nga arrêté combat bi jox ko la victoire dégg la te victoire boobu sax day waaw victoire la waaye man du ma victoire mooy bàkkoo waaw waaw du victoire mooy bàkkoo waaw dóor bu daanu waaw yàlla ba ci kaw dóor ci suuf kenn du joxe drapeau bi ndax poussière bu bari waaw doo am lay waaw waaw wëlbir gàng rek mooy wëlbir gàng li ma la wax rek gis nga làmb bu leeree amul coow amul nii amul werante amul loolu loolu bu ñu ko indee ci làmb làmb ji dina dundaat des fois nga gis mbër bu ci yàlla ba ñu ko bu jógee du wax dara de. allo waaw waaw. ña mu àndal wax dara di. waaye sukk naag nañ dem recours ak nañ dugal vingt cinq mille ak nañ dugal recours ñu dem nga daal di wër euh, euh, kii yëpp. télé yëpp ñu xoolal ñu ralentir la xool kan moo jëkk a teg ku jëkk a teg ak kan moo mujj teg ak kii jëkk teg lii am na loo xam ne bët mënu koo gis. combat bi Balla Gaye na ci plateau bi ah. loolu moom xam naa. c'est que Balla Gaye naa la wax benn jikko ci ah. moom benn jikko ci moom loolu dëkk la ci moom du question dama ko faral mais du contesté jël ba ma ko xamee muy mbappat ba nagari muy bëri musuma gis muy contesté jël daan nañ ma war a daanoo bu daanee daan boo boo ko ne boo ko ne kaay bëri day ñëw bëri contre Yékini xool ko dañ ne karab bi jël la daf ko dëbbanoo ji mu dóor ñaari obi ñaar loxo yi bi mu jógee taxaw da dafa xool at bi at bi ne ko bëri mu continuer yaa ngi gis nga loolu mm. man gis naa ko ci mbappat gis naa ko ci leneen am na ñoo xam ne buñ lu ñu am ci moom rek daw nañu dem waaw waaw ah, yàlla na ko yàlla waaw parce que man xam nga ñoom man li may wax te des fois dañuy defe ne man ni may doxal rek laay wax mm-hmm. parce que gis naa ne ñaawul njort te bëri da ko jox ak xam mm-hmm. bari na ci ay morom yoo xam ne noonu ñu ci bari day bëri jox bëri seen ak mm-hmm. waaw am na fi mbër yoo xam ne bu ma ko limoon tey dañ naan père bi dafa farag ñi dafa farag ñi déedéet waaye ku fa ku jox ak làmb ñii si daan xam ne kii day jox la làmb ak